750 vite fait mais, mais tu as raison parce qu'il faut pas faire attendre notre invité. Mm-hmm. alors euh, 750 euh, euh, euh, mm-hmm. de. non dafa dafa rëy. dafa fajul dara gars mais moom mooy bu info bi. démb bu démb démb bi. mais colonel bi ba Baara mais li mu wax rek moom déjà il a il a tout dit. Mm-hmm. au moins mais jën nga ay machine ak naan ana machine ya mais ñun tout ce qu'on demande à l'État mooy bala moo nañu lijjanti foofu ak xaalis bi anamu président Macky Sall discours am euh, nee na la ñëw ak moom ni mu defee discours ba waaye seen président mi ngi seen ginnaaw. di loo xam ne vraiment euh, communication catastrophique. mais 10 milliards bala ngaa yokk 10 milliards. bor am rakk. dëgg la 750 milliards doo ko lijjanti ba pare. mu leeral ne comme li ñëpp xam. mooy lii 10 milliards yii. dina dem encore enrichir ay multimilliardaires déjà. ñoo xam ne man ay vampire laa leen wooyee parce que ils sucent le sang des pauvres sénégalais comme moi qui vivent dans une misère incroyable ñi ñi ñi sa war a génneel mooy malheureusement ñi nga xam ne ñu ñoo leen wóolu tànn leen. et ñoo xam seen nekk suñu parce que 10 milliards boo mais ku ne xam na ni 10 milliards lan la faj. ñun inondation yooyu yii yow déjà génneel nga programme décennal. 2012 mm-hmm. 2022 on est ñu ngi si 2020. presque. deux ans ci ginnaaw bëri deux ans ci ginnaaw. nga ni les sept nga ni les sept réalisé guñ <laughs> ko loolu leeraloo ko nga jëlaat encore beneen diim yaa jox ko xaalis boobu fan lay dem. nuñ koy pàcc pàcc gis naa am na ay sapeurs-pompiers yooyu duñ seen dara il faut encore s'enrichir il faut encore enrichir des des gens. ba pare benn benn affaire boo métti si président Macky Sall mooy il croit que l'argent règle tout man li ma gën a métti mooy moo dafa defee ñun Sénégal. ñun da vraiment ñu ñu ñu ñu ñu ngi si degré zéro de la misère c'est-à-dire ñu ngi nii ñu problème lekk xam naa dafa defe ne ñun loolu la ñu am. oui jël naa si 3 milliards boo xam ne leen nag moo ma neex ci li mu wax nag mooy enfin il se rend que fii am na ay ay ay bagages yu mel ne mun nga ko toog si kër jot sa xaalis. bu ko bu ko teeloon xam. ci ba muy jëm euh, ci ci ci force Covid bi. Mhm. on en serait bëri woon na ci force bi. ñu bëri jotuñu woon est-ce que tamit bii ça va bii ça va parce que xam nga force Covid bi foofu dafa amoon ñoo xam ne jàpp ne seen euh, koom dafa dafa dafa lompoñ parce que seen activité dafa taxaw bii nag. c'est des vies qui sont dans l'eau nit ñi 3 euh, milliards nga ne moom nga jël jox ko combien de 14 régions du Sénégal qui pataugent qui ont perdu leur vie leur maison toute leur vie c'est-à-dire toute leur vie ñu perdre ko nga ne benn 3 milliards par après du un du àgg c'est clair et net du àgg deux bu àggee ku ne ay 20 milliards wala 25 mille mais loolu lan nga faj ba pare beneen nga xam ne foofu laa bëgg a daanelee Fatou Euh, je n'aime pas le dire parce que man euh, euh, jigéen laa. te je je, je n'aime pas euh, avant j'aimais bien le le le féminin euh, mhm. mais après comme y a eu dafa dem dafa xaw a dugal fourre-tout. Mhm. te man bu xawee fourre-tout weeree dama ci génn nànk. Mhm. mais je n'aime pas parler des femmes parce que je suis une femme. <coughs> te j'estime que ñun en tant que jigéen on est très malmené euh, par euh, <laughs> les hommes qui ne nous rien am na nga xam ne moom bu ko Cheikh waxoon ça passe mais Aïssata Diop Fall wax jigéen la ça ne passe pas yooyu euh, donc am nañu méttital yu bëri yoo xam ne dañ teg jigéen et moi je n'ai pas envie d'en rajouter des tonnes quoi mais des euh, donc donc dama koy wax vraiment euh, avec un pincement au cœur gënalu ma mais il faut que ma wax ko parce kudu gël bi la waaw Marème Faye Sall euh, sama mag la <laughs> dama naa je bien elle m'aimait bien avant mais. avant ah plus maintenant. <laughs> Ah, non plus maintenant parce que xam naa yi may wax fii seen seen info du matin bi tamit mi ngi may yàqalaale au passage <laughs> donc ma euh, Marème Faye Sall euh, c'est une grande dame une brave dame tout ce qu'on veut mais wax dëgg fa yàlla il faut mu arrêter. wala ñi koy xelal mu arrêté ñu arrêté. affaire bu démb bi moom honnêtement fii la ma des. premièrement par ordre de préséance du moom moo war a dem. moo moom warul jiitu. bien que ku ne xam ne sax àggul carrément ci xolu yëf ya mais warul jiitu président de la République mais ñun faluñu Marième Faye Sall quand même Macky Sall lañ jëkkëram lañu fal. moom xam nga bëgg naa booy jàppale si ñu ne ay borom jëkkër la ñu faate. Mhm. sa jëkkër boobu pourquoi ñu ni derrière chaque grand homme y a une grande dame. mais sa jë da nga dégg aussi olof naan nit doo ko yedd ci pénc mais sa jëkkër boo ko bëggee jàppale dëgg doo def doo poser ay actes yoo xam daf koy affaiblir mooy dañ ñaan dafa mel comme yow yaay yor doole boo ko yoree sax même yow bu ne yow yaay euh, sa jëkkër yaay loo ko déy mu def ko mais doo ñëw ne ci mbedd bi di wane carrément ne man parce que ñun tamit ay lañu ay africain lañu dafa am nu yaree amee ci moom pouvoir sax mm. mais surk nga xëy wane bu dee yow nant dëgg nga mm. mais doo ne fang tu ne gagnes rien en en nekk en di wane ne dëgg-dëgg mm-hmm. euh, parce que pourquoi elle c'est d'abord elle qui va là-bas pourquoi un mm-hmm. deuxièmement mm-hmm. faluñu ko je le répète faluñu ko Macky Sall la ñu far jëkkëram dafa waroon a xaar ba doon dafa bëgg jàppale jëkkëram dëgg daal dafa waroon a xaar ba Macky Sall dem ba pare mu doog a jaar ci ginnaaw def lu muy def mais li muy def nag surtout mooy man damaa sonn ci Marème Faye waa elle est gentille elle est humble elle modeste elle kii dafa ñu bëgg dafa ñu nangam démb euh, modeste bëgg d'accord naa mais tout ce que tu fais woo caméra woo àddina mërgër képp mhm. dafa too tu n'es plus humble mhm. tu n'es plus modeste tu es dans le ngistal tu es dans le voyez-moi tu es dans le voyeurisme et tu es surtout surtout en train de te une balle dans le pied. parce que nag ñun dañu am dañu bëgg sutura te jigéen da ngay suturaal sa bopp. beneen bi euh, mais foofu laa jeexalee Fatou. j'abuse mais mais je euh, pour le cas de de Marème na na na na moytu. Mm-hmm. ñi koy xelal dañ koy dañ koy dañ koy yàqal. Mm-hmm. dañ koy yàq mu xoolal fi mu fi mu nekk ñu ngi wax ay mesures bari ñu ngi wax ay nangam yow nit ñaa ngi feebar. Mhm. nekk si ay jafe-jafe tu vas là-bas. Mhm. créé fa benn émeute boo xam ne. jaroo mhm. euh, ko politiser affaire bi. pourquoi à quelle fin. Mariam Faye Sall na arrêté di caméra yeeg micro yi nay def te yàlla tax def te yàlla tax mooy nga masque wu làqatu dem def bu sa bu sa jëkkër jógee fii nag ñu doog a xam lan nga doon def. très bien a je te remercie. et je a remercie. <laughs> jërëjëf invité bi xoolal dafa invité baa ngi ree ah bon monsieur Ndao. kii mooy Aïssatou Diop Fall sunu gan léegi léegi euh, bu ñu jógee